comme ni ko ñu bëri defee ci réewum Sénégal ak li ko wër njabootuk El Hadj Omar Foutiou Tall ñoom amal nañu feetuk korité niki aljuma ji imam bi jiite bi la julli ci xutbaam jot na fàttali njariñu jàmm ci miim réew. di ñaan nag doomu Sénégal yëpp nañu daje nekk benn fitna baaxul ku xool li am Soudan di nga xam ne fitna kenn du ko woo fit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al fitnatu naaima laana man ayqadaha fitna mu ngi nelaw mais yàlla rëbb na ku ko yee bu kenn yee fitna fitna su um, commencé kenn xamul fu mu yem suñu borom nee ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaas moytu leen fitna boo xamee ne du yem si ku ko sooke su commencé kenn xamatul fu muy yem. imaam bi ba tey di fàttale digleeg islam wante itam li nga xamante ne moo soxal muurum koor doon li nga xamante ne lu war la ci bépp jullit. fu ñu munta dëkk ku nekk këram la dëkk nga mais mu xat-xat bés bi bu mu paase demuloo si say waajur ziyaare leen nga dem tamit si say mbokk jokk say mbokk ndax kuy jokk mbokk yàlla dafay yokk sa wërsëg. muy ay digle yu ñëw ci waxtu wu mu gënee bu ñu sukkandikoo ci ñi ñëwoon ci bërëb bi ngir amelee fi julli korite gi ndaxte ci jamono ji am na diwaan yu bëri yoo xamante ne nekkuñ ci jàmm lu ci mel ni réewum Soudan. ndax jàmm mooy lépp wax na ko ci biiru xutba bi yàlla Ah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan ragal leen fitna boo xamante ne bu ñëwee du yem rek ci bopp borom daanaka boo seetaloo diggante ñaari réew yu mag yi mooy Russie ak ah, Ukraine seen seen seen guerre bi am na sax njeexat ci suñu réew mi te digg suñu diggante Ukraine suñu diggante ak Russie sori na foofu ngay xamante ni fitna baaxul fu mu mënta jógee baaxul xalif général bu famille omarienne moom nag daal dina porox ndoll ci bile occasion ngir jaajëfal gouvernement bu Sénégal ci ay jéego yi nga xamante ne bii mu ngi koy def jëmale ko ci këru diine yi moom ma Madani Tall jot na itam def ay ñaan ngir réew mi nekk ci jàmm